bu loolu weesoo nag sama combat bi Podo police bi xam ngeen ko yëg ngeen ko xam nga ni combat bi dem na bay taxaw bi Podo di xaani xaani naan ay Bombardier moo ko ne bu mu jël avance bi yow Bombardier moo tax Bombardier moo tax Bombardier maa ngi koy ñaanal Balla Gaye 2 ko duma nokk ko nokk yàlla ko dóor mu xam bi yàlla ko Balla Gaye dóor mu xam yow nooy léegi avance yóbbu sa kër bi Podo war a jël avance nga naa ko bu jël. est-ce que amul mu gis. yow bi Bordeaux daa mën a yóbbu esar ñaari kaar ñi ngay fay trois millions mi xaari xaari Bombardier mu yàq làmb ji yàlla ko Balla Gaye nook duma ko daan ko. yàlla ko pare woon nga pour làmb ji. wallaahi ndax pare naa pour làmb ji wallaahi man nii may waxee yow ni carrément nii man ki ma doole Sénégal bi Aziz Aly Ndiaye tey mas si laaj trois millions huit cent yor ma jox ma billet sama billet sama billet français mais ci la bokku mais tamit ci la bokk de sa 10 000 daa mel ni kii woo de pare woo de. kan nga pare wol xool pare naa pour man ci laam mu yëngu yëngu naa pare naa pour bëre bu loolu weesoo rek taxi de ba ñëw. sàcc lañ rek samay cap rek ñëw sàcc ba waaw. waaw. d'accord merci beaucoup. si yow. sama combat bi bëroo moo war a taxaw su ku daan dem jëli ku daan dem jëli alaaj mbay xam maa buusa duñu bëri ñu bokk suma deel ku daan dem jëli alaaj mbay barke Sëriñ Bamba sëñ Fallo